ak bi nga xamante ni ñu ngi jógee ba Dakaaru Ndiaye ñëw pour couvrir gàmmu Taïba Médina Baye édition 2000 gàmmu Taïba édition 2024 euh, jamono ji nag euh, ñu ngi nekk ak euh, suñu maam docteur Omar Niass mu nekk professeur bu mag di jàngale fële ci université Cheikh Anta Diop nekk bindkat nekk chercheur bu mag yaakaar naa ñu bëri euh, xam nañ ko soxlawul ñu koy présenté sax ci biir réew mi ndax euh, ñu ci bëri xam nañ ko ñu am mbégte ak kontante bu baax comme yàlla def na moom bind na dara ci histoire Taïba seen ñu bàyyi ko mu waxtaaneel ñu ci lenn ñu def ko comme yóbbalu gàmm Taïba édition 2024. leer bi daal maa ngi leen di nuyu bu baax <coughs> yéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bés bi moo leen yëkkati bés bi Maolana Cheikh Ibrahim ñas ngeen ñëw fii si Taïba seen di deuxième capitalu fayda Tijania donc ku wax Medina Baye da nga si teg Taïba Niassène Taïba Niassène nag ak Medina Baye ñoo bokk benn xalifa bi xalifa Maolana Cheikh Ibrahim Xadimul Umma moo nekk xalifa Taïba Niassène moo nekk xalifa Medina Baye donc mooy xalifa bi nga xam ne ñu ngi koy ziare di ko ndokkeel si bés bi nga xam ne mooy juddu Maolana Cheikh Ibrahim Niass fii si Taïba Niassène nga xam ne fi la juddoo ah euh, mu nekk loo xam ne mbégte la ñeel Sénégal loo xam ne nii wax dëgg yàlla am euh, si si cosaan euh, Jolof la ñu jugee ah li nga xam ne moo ñu yëkkati woon si maam yi indi ñu Saloum bi mooy jihaad ne Maba moo woote jihaad ah sunu maam Mohamed ak ay mbokkam jógee fa mu oo sëriñu jolof yëpp suñu maam Mor Anta Sali ak jërës euh, ñi nga xam ne ñoo bayoo koo jolof yëpp ñëw fekkee si la ko jiyaat googu ñu jiyaatee ba am ndam si tubaab yi mu ne sëriñ si nga xam ne ñoo jógee jolof nañ dëkkee si xarfu bi boo gisee communauté rurale tey ba Niassène ak communauté rurale bu njëkk la ñuy wax ak communauté rurale Porokhane daanaka ay seex lañu noonu la ñu dëkkee sëriñ si yëpp xarfu bi lañ dëkkee booba li ñu doon def mooy bay dundee ak euh, daara jàngale ak jàng loolu moo fi nekkoon ñu fekkoon fi ay païens ñoo xam ne gëmuñu ñu def leen ay jullit ànd ak ñoom wax dëgg yàlla am di liggéey suuf si di jàng di jàngale tubaab yi nag bayuñu bayuñu leen si loolu ba nga xam ne moo tax Maalaaji Abdoulaye si jamonoom ah lakk nañ fi Taïba jógee na fi dem dem Gàmbi ah, Mawlana Cheikh Ibrahim dana koy nettali sax ne man ñi ma mag ñi nga xam ne maa leen mag yëpp Gàmbi leen ju juddoo moom ñi nga xam ne ñoo ko maa ngi ñëw juddoo Sénégal ak moom mi nga xam ne juddoo na Taïba Niassène Taïba Niassène ñu sanc ko 1898 ñaari at avant Maulana Cheikh Ibrahima Niass euh, du di juddu te wax dëgg dëkkoon nañ ko waaye dëkk boo xam ne la ndox dafay jafe woon ndaxte dafa bari suñuy mbokk yi nga xam ne te loolu wax dëgg yàlla am ñu ñi nga xam ne gëm nañ xam nañ ne ah ni yàlla ji bindee nit noonu la bindee jinne bu nekk dëkk boo xam ne nag wax dëgg yàlla mbokk yi dañ fee bëri woon yi te saa su nekk rek buggu woon dëkkandoo bi saa bu ñu gasee teen rek si maam yi fi jiitu teen boobu bu ñu bu ñu xëyee bu ñu xëyee gas ba ngoon jot rek déggee ñu sul ko lu ndox nag tëfa te fu ndox amul rek wax dëgg yàlla am dëkk du fa mën a nekk loolu jafe fi noo tax dëkk bi gent bi Maalaaji Ablaye ñëwee nag moom wax dëgg yàlla ak li mu àndaat ah, moom mu gaa di gas ah, dëkk bi dawet soog a nekk dëkk donc dëkk Maalaaji Abdoulaye la ñëw dëkk bi borom dëkk bi mooy xalifatal am dëgg bi nga xamee ne ñoom ñoo koy dénkaane koo dégg ne Taïba mooy boroom dëkk rek bokk ci yeneen dëkk yi kuñ dënk dëkk bi la parce que xalifa bi nga xam ne mooy xalifa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mooy moom dëkk bi si kilifteefam wax dëgg si la ne donc képp ku ñale mooy borom dëkk ba rek du maamam moo ko moom du doon waaye dañ ko ko dénk si gannaaw bu nga xamee ne lépp concertation lañ koy defee ñu ngi ñaanal suñu bay mbay mi fi jóge woon bi fi jóge woo it sëñ bay yónnee Eh, imam cheikh may porte parole mu ñëw taxawee notable dëkk bi yëpp dajee waxtaan ak ñoom ñu man delloo ak taalibe delloo na ko dëkk bi ñu ngi leen di déglu ku ngeen tànn rek ñu topp si kooku ñu tànn suñu mag eh, Amat Abi Alaaji Amat Abi ñu tànn ko mu nekk borom dëkk ab Taïba seen donc boo ko teg di yeneen dëkk yi nga xam ne wax dëgg ki ko moom sa bu gaañoo sa doom ju mag nekk fa bu gaañoo noonu Taïba Niassène demeewul noonu Taïba Niassène Taïba Niasseenu pays bi la waaw ah, lu ñëpp bokk nag ñun nag dañ koo dëkkoo waaye ñu nag taalib yëpp ko bokk ah, muy dëkk boo xam ne macha allah waaw ah, nit bu koy dégg foog na dëkk àll nag nangam waaye Taïba si cosaan ba léegi nii la rawee bi ñuy borno Taïba si tund wi yëpp bu ñu fi borno benn benn dëkk la wala ñaar waaye Taïba yaakaar naa li ñuy wax borno lotissement Taïba lañ ko njëkk def si tund bi mu amoon visionnaire boo xam ne Maolana Cheikh Ibrahima Niass mu xam lan mooy agriculture lan lay nit ñi di dundee loolu nag mu tàggat si doomi Taïba Niass ba nga xam ne boo bëggee gis jàngaleem ak li mu fi def rek nga xool ni tey ni xale yi mel si liggéey bi fi ñu dem nii nan la ñuy si suuf si dama koy wax tout le temps man sama oto bi boo génnee xool ko professeur titulaire la université bu may jënd oto damay dem banque bi mu lewal ma mais oto bi may dawal moom lay xale yi di dawal te ñoom seen poche lañ ñu xëj jënd ko nga xam ne barke ngi si dëkk bi teraanga ngi si dëkk bi sama kër gi bëri na fi boo tourné ñoom ñëpp ñu ngi tabax kër yoo xam ne ñoo dàq suñu kër yi te loolu yëpp barke dëkk bi la wax dëgg yàlla am fi ni nii fii ngeen nekkoon nii sax ñaari weer yi ay chinois laa fi loué lo defoon location yoo xam ne ñooy jënd gerte gi fii di ko yóbbu di ko def si ay conteneur bët bu set mu am 10 conteneurs yoo xam ne dana jógee fii di dem port directement loolu na gën lu ñu waaye pour te dire barke dëkk bi bu njëkk avant avant chinois di ñëw loolu la meloon si Touba danaan wàcc Touba ba ban semaine ma nettali benn bés ne benn sa mbokki benn ba dana Taïba Touba lu ëpp lu tax ma ko doon laajte mooy ni oto bu wàcc rek ñu fu mu jógee ñu ne Taïba ñu seen oto yi noonu la ñuy taxante loolu nag barke dëkk bi la nga xam ne lu nekk am fii ñor ah ñi ñi tim macha allah loolu nag ñu ngi koy sante Mawlana Cheikh Ibrahim waaw ah, te loolu nag ñëpp a ngi koy jariñoo parce que boo gisee melting pot la ñun bi ñuy xam ay Ghanéen ak ay Hausa ak yooyu xale lañ ñun dañoo foog ne rek ñoo bokk dëkk Sénégal donc ba nga xamee ne euh, ñëw na fekk fii ma baayam El Hadj ak i baayam baayam Sëñ tubaab baayam El Hadj moom dafa daal di wax ne ah l'islam baa ngi tas Sénégal li ko intéressé woon mooy tasaaree l'islam moo tax mu génn sous région bi foofa dem rek danga gis ne ñoo xam ne nii fa lañ fa lañ dëkk cosaanoo fa du ay immigré yu tasee si rek ñoom fa lañ dëkk cosaanoo fa ba pare te te nekk ñoo xam ne ay taalibe Mawlana Cheikh fii si Taïba Niassène li fii li gën a xam ne du ngeen koy teewe souvent mooy gamu Medina Baye bu amee gamu Medina Baye mooy màggal juddu yonent bi da da koy da koy daal di ngénte at bu bés bi dellusee mais diggante boobu gan ñi jógee si sous région bi jaar si frontière bi ñoom ñëpp ñu ñëw Medina Baye danañ agsi tay ba ziare si damay def man des fois bu ma gisee bus dama leen laaj mais da ngay gis ni ñeneen ñi ay Tchadien beneen beneen béninois da ngay gis ñu ne Ivoirien lañ te ñun des fois dañoo miinoon lu ñu gis rek dañuy wax ne Hausa la parce que Hausa yi bëri mais man fii de toog naa fi laaj ci benn bés ñu ne ñun beneen di ma wax français ñu ne ñoom beneen lañ jógee donc fépp si tout région bi rek foo dem rek da nga fay fekk njabootu Cheikh Maulana Cheikh Ibrahim te lenn takkaluwu leen rek lu may lim leen jàngal fii da ngay gis ne du sant Ñas rek moo tax ne doo sëriñ yéen ak maay laaj sama sët baa ngi nii toog waaye xam nga ne bu dee téere yi moo ko jàng man tubaab laa jàng je suis professeur titulaire énergie laa jàng bu da ngeen maa aussi waxtaan énergie solaire bi ni muy demee nan la ñuy def ba nga xam ne courant bi loolu moom wax dëgg yàlla bu boobaa xam génn li ma xam ma wax leen ko parce fa docteur la may woowee sax waaye am naa ay docteur fi mu ne waaw macha allah donc li nga xam ne nag mooy cosaani dëkk bi moom mooy jàngale alxuraan jàngale téere yàlla bi woo nit ñi si yàlla jëmee leen si yàlla loolu amul sant amul ñas laa sant amul bite laa sant amul dramé laa sant kenn ku ne mën naa taxaw bu ta toogee si ñàngaleem bàyyi li bàyyi nga dégg ko boo wootee taalib yi dañ lay daal di topp jàpp na yow yaay bàyyi ñes moo tax fii ku taxul nga nga gis ñu jiitu ñu topp ko rek boo ko laajee lu si gën a bëri santul ñes taxul nag comme comme lii di tàkk nii nga ne courant baa ngi nii taxul nag nga branché ko fee nga ne fee am na courant tey bu ñëgee ba mu yàgg na bu dee kàcc rek bu coupé rek xam nga ne coupé wul tabaski nii yëpp ñu ngi koy am bi ñuy defar ngay gis ne dana coupé courant bi jugee na fii ba kaw Kaolack wala mu gën koo romb te courant ba fa mu jugee fañ koy toggee bu tasaaree rek yow boo taalee da ngay wax ne am nga courant donc bu la bu la yëf yi nax ba nga foog ne yëf yi yow la yëf yi fa mu jugee rek mooy balla di tasaaree fépp mbir mi ba léegi mu ngi dellu si maw Maolana Cheikh Ibrahima si buntam la ñuy xamee yàlla si buntam lay nit ñi di wax la ñuy wax lu ñu xamul comme ça ça entre dans le domaine de l'irrationnel nag moo tax du lu ñuy convaincre da ngay gis rek nga gëm xam ne kii yàlla si la lay oo tudd yàlla la lay oo lii jaamu yàlla lay def nga daal di xam ne kii kat yàlla yi nen la man de bu mu xamul lu muy wax ne maandu naa si xam naa ne kii yàlla tax mu jóg waaye du luñ lay raisonné duñ luñ lay convaincre du lenn loolu mooy oote bi. li nga xam ne nag moo ñuy dajale mooy suñu kilifa diini yi nga xam ne day euh, euh, gàmmu la gàmmu ñu bëri dañ koy diingaat ak i màggal waaye ñun ñoo xam ne dañuy daje lu ñuy dajee mooy wax si ki nga xam ne jaamab yàlla bu baax la. koo xam ne modèle la ñu koy jàngal xale yi nga xam ne modèle réer na te ñooñu mag ñooñu mag ñu baax lañ mag yi diine lañ mag yi lislaam lañ ñoom seen adduna yëpp topp yàlla la ak liggéey ñu lay seen jaar-jaar dalee ko si yonent bi sallallahu alayhi wa ak i mag ñu baax ñi ñu dajee di leen waxal nit ñooñu seen comportement ak seen dund pour xale yi roy si loolu wax dëgg remplacé wuñ ko benn ponk si lislaam waxuñ ne mooy julli waxuñ na mooy or waxuñ ne mooy sara eh, mooy mooy joxe azaka waxuñ ne mooy aji màkka waxuñ benn si loolu dañ ne lii kat jëf ju baax na parce que dajale ay nit di leen wax si yàlla di leen delloo si seen borom bi ñun loolu lañ xam si gàmm moo tax sax alhamdulilah rabbil alamin gàmmu anniversaire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ñu gisee ne njariñaal kese la wax dëgg yàlla dëkk yëpp a nga koy jàppal bés te lépp gàmmu lañ koy tuddee waxtaanee fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaanee fa dundam waxtaanee ban modèle de société la doon def parce que c'est un homme politique mooy jiite mooy jiite jumaa ji mooy jiite diini ji mais adduna bi tamit moo koy jiite parce que atte yi ci charia lañ doon atte lépp moo koy doxal ñun ñi nga xam ne nag ay jullit lañ dañoo bëgg wax dëgg yàlla di dégg loolu de xam fi ñuy jaar fan la parce que àdduna bi nag lépp ubbeeku télé bi boo ko ubbee dara adduna du la ump donc bu ñu xamul ñun suñu homme yi nga xam ne ñooy suñuy modèle ñu ñu koy waxtaanee yaakaar naa loolu njariñaa kese la te xale yi bu boobaa mën nañoo seet loo xam ne du référence ñu si référé wu parce que ñun dañoo bàyyi li nga xam ne waroon nañ leen koo jàngal loolu moo tax gàmm moom ñun de bokkuñ si ñi koy déggal ñun dañ siy kontaan lépp lu ñu am ni ko noonu bàyyi ak maam yi doon ko defee lañ koy defee dañ koy génn génn suñ kër yi dalal gan ñi liñ am ñu bëri mu néew ñu teral leen si ànd ak ñoom déglu sëriñ bi ñu firil ñu ki nga xam ne dundam yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa la li ñuy wax si moom sax moom si yonent bi rek lay wax moom lenn léppam yonent bi sallallahu alayhi wa la bu boobaa wax si moom mooy wax si yonent bi sallallahu alayhi wa parce que moom bindam ak li ñuy tekki ak lépp si dund yonent bi sallallahu alayhi wa donc ñun ñëpp buñ bokkee fuñ jëm dañuy dajee mag ñu baax ñëpp si loolu lañ nekkoon moo tax ñun dañuy jàngal loolu loolu daal gisuñ ci gisuñ jullit boo xam ne war naa di nga luñ mel parce que conférence danañ koy woote conférence yi nga xam ne ñun ñi nga xam ne si séance la ñuy la ñuy yëngatu dañuy tukki sax si conférence boo xam ne thématique la ñu ne si nangam la ñuy waxtaanee si nangam la ñuy waxtaan ñu waajal conférence bi tukki fa frais d'hôtel ak yépp toog ñu waxtaanee xam-xam lii géew yu mel noonu la mais géew boo xam ne la dafa jëm si yàlla mooy li nga xam ne yàlla lañ fay tudd di ko fa màggal di julli si yoon bi sallallahu alayhi wa di ñaan di wax si nit ñu baax ñi loolu moo ñu dajale Taïba Niassène ah faneen ak faneen ti moo ñu fi daje bërki démb gis ngeen leen yàlla boole bërki démb ñu ngi woon Porokhane man 23h maire bi sama xarit la dem naa fa ndokkel ko jugee fa incha allah danañ ko gis ci tey jii dana fi ñëw ñun noonu lañ dëkkee woon mag ñi noonu lañ dëkkee woon di ñaan si réew mi yàlla def fi jàmm jàmm jàmm yàlla pare na démb bay tey di ñëwat di danañ jóg danañ yaxantu danañ def lu nekk danañ danañ bëgg danañ dugg si politique si élection si weer yii di ñëw rek. jege lool waaye yàlla moom pare na démb bay tey di ñëwaat parce que suñ juddu bi wax dëgg yàlla bañ juddoo ba pare fekk na yàlla def na li ñu war a dund yépp bés bi ñuy génnaat di nag tege si suñu loxo yépp suñ sëriñ dafay wax ne de wutin bi day rafet parce que wërsëg moom àla kulli haal da nga koy am donc la ngay dem ne def nga si loo xam ne du noonu ba jot ko boo defoon la nga xam ne moo war sax da nga ko jot parce que loolu sa wërsëg la lu war a tege si sa loxo la may dégg oustaz na yàlla yokk leeram moo koy li te ñoo ñëpp si bàyyi lañ nàmpee ku wax rek waxi Maulana Cheikh Ibrahima la ñuy dégg képp conférencier boo xam ne téye na téye na kàddu di wax mais Cheikh Maay mi ku man di doon rek Cheikh Baye di fu ñu mën di tasaaroo ngay dégg ne kii moo bëri xam-xam rek xamal ne daa dégg rek di wax. man noonu lañ mel si ron El Hadj Abdoulaye lañ yaroo muy wax ñiy dégg sama papa rahmatullahi lii dafay wax ne xaritu Maulana Cheikh Abdoulaye Ibrahima Niass bu ko jege la papaas dafay wax ne euh, sëñ bi bi waxtaan si wolof euh, la yàlla wax si arxuraan si li ñuy wax loolu lay wax boo déggee arxuraan ngay xam loolu bu ma ko waxee Cheikh ma mu ne ma bàyyi noonu lay def kon alaaji Ablaay loolu sama bàyyi moo ma ko wax mu ne ba wax bi àtt si mbir du wax sax aaya bi firi ko moom moom la arxuraan wax rek mooy waxam sa su ne loolu mooy waxam nga xam ne moo tax ñu ne dëgg si dëgg rek lay sax parce que arxuraan dëgg la loolu leen moom moom ku ñu yar la dañuy dañuy dañuy dañ koo miin lool suñ xaritu suñu xaritu papa la suñu pàpp la sunu sunu lépp la miin tay ba ñu seen ajuma ak ajuma moo koy booleek booleeg na Baye mu nekk visionnaire boo xam ne si élevage si mbay si lépp moo si xirtal xale yi wan leen naka la ba nga xam ne modernisation bi bañ ko commencé kenn xamul kañ la léegi ni état bi accompagner leen rek ñu bàyyi eh, agriculture rudimentaire bi ñuy def machine yi nga xam ne bañ koy utiliser sunu maam yi ba léegi loolu war nañ koo dépasser loolu yëpp ñu ñàkk tem di def tim di xaar Euh, hivernage pluvial mooy bu tawee rek la ñuy bay fi ne war nañoo toll ba nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy bay noor di bay nawet te loolu pour mu am il faut la maîtrise de l'eau il faut ñu gas def ay forage pour nit ñi liggéey parce que dund kat nit ki dafa waral a li nga xam ne moo koy dundal mu di ko bay te Sénégal am nañ ay terres arables yu am solo fii yëpp fii ba Kolda si boo si suuf fii ba si kaw bu région du fleuve Sénégal daanaka la plupart dafa plan nekk loo xam ne buñ maîtriser l'eau di ko irriguer wax dëgg yàlla xëy ndaw yi ñuy wax ak loolu yëpp kenn ku nekk dana gis sa bopp si li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ñuy dundal te loolu mooy développement yàlla tim def fi jàmm parce que ñun ñëpp ñu oote jàmm parce que yàlla pare na démb baytee di ñëw ki fii yàlla di vingt cinq février mu loolu pare na loolu lu lu pare la du loo xam ne nii dañ kii mais nag jàmm bi dana sabablu dana sabablu ne kii laa bëgg ñu ngi ñaan nag ki ñu bëgg yàlla na fekk ne moo gën ci réew mi yàlla jox ko réew mi te ñun ñëpp ñu ànd ak jàmm kenn ku nekk gis sa bopp